enfant de la rue plus généralement euh, ci terme de référence yi moom la ñu waroon terminer pour sa jàngat foofu euh, ñu bañ ko fàtte ñu ñu tegee ko chapitre bi buñ ci tolloo ma dellu ci commissaire interpellation yi bëri na. Pape Djibril Fall sur euh, police de euh, proximité ou police municipale bi nga xam ni il appelle sa euh, à ses voeux xaw ma lay ci tur yi ni mu fay ñu indiwaat ko Papis Diaw tout comme Bouba ni ñu posé problème bi lan nga ci indi comme tontu. c'est vrai que interpellation yi bëri na Abdou Djibril li mu wax c'est c'est très pertinent. Euh, mais su may wax effort u état c'est pas de la c'est une réalité maa ngi koy fàttali ko bi may def concours man on prenait deux personnes sur le plan national on était 4887 candidats on prenait deux et les gens s'en glorifiaient alors que xamuñu ne c'est très mauvais pour la corporation parce que dañu dem ba finalement les gens partaient à la retraite mais amuñu ñu leen remplacer parce que le nombre ne suivait pas mm-hmm. ñu dugg ci recrutement massif ay 50 commissaires ay 100 commissaires fi mu nekk nii dañu dem ba gis ne sax li ñu recruter dafa bari ci commissaire. mais loolu kon recrutement massif am na. ay ay ay ay 600 personnes 500 personnes la ñu leen recruter. léegi on recrute d'un coup 1800 2000. ça veut dire qu'il y a des efforts extrêmement importants d'État. ça c'est pas de la démagogie c'est la réalité. D'ailleurs, euh, la population, euh, disons, la, la, la, police actuellement, on est en nombre. Wolof. On est, de, de, voilà, Commissaire police, police de, de machallah quand même, am nañu nit yu xaw a doy par rapport ak li daan am. nan est-ce que doy na pour mën a gérer la sécurité du doy mukk nag doy mukk parce que dama ne tant que amuñu benn policier derrière chaque Sénégalais pour man eggaguñu fi ñu war a fi ñu war a yegg te loolu du am mukk alors leneen li euh, police de proximité bi ngay wax. police de proximité tuddoo ko mais xam naa ne ASP yi ngay junj mais mais police de proximité sax dafa jiitu ASP yi. Hmm, hmm. jiitu na ko. Euh, man en 2007 maa ubbi le poste de police de Diamaguène à Mbour en 2007 déjà le 16 août 2007. on parlait déjà de police de proximité. Hmm. parce que mooy jël benn poste de police implanté ko dans des quartiers qui ont une tradition délinquante. des quartiers difficiles. nga dugal fa police. ñu ñu ñu def ci également. Euh, beneen approche bu ñu ci defoon ñun à l'époque beneen jàngat. mooy ne population yi il faut la meilleure manière de inviter leen ñu ñëw vers toi mooy football ak ñoom parce que le sport est un vecteur fédérateur. dañ doon foot ñun football rek la def ba fii may wax yow. chaque lundi am nañu match stade Caroline Faye 22h koñu mbuur yëpp tase na ñoom ñoom daanaka. ah ñuy yi am nañu équipe fii de. yooyu mën ngeen a ñëw ñu fóol ak yéen dóor rek <laughs> yooyu approche politique de proximité la. Parcelles Assainies c'était c'était le cas commissaire yi ko fi def à Dakar du jeex au Sénégal du jeex. sans compter maintenant yi ñu def. dans les dans les régions. rencontré wu entre forces de défense et de sécurité parce que foofu également y avait des goulots d'étranglement il faut faire éclater ces chaînes-là mm. ay ça profite plus aux délinquants mm. qu'aux qu'aux citoyens moo tax fexe ba maanaam bi bi war a am entre gendarmerie police <coughs> ça pour pompier force de défense et de sécurité yëpp dañuy def corpo mm. match yu métti lay doon nag parce que kenn du bëgg yóbbul la ko. Mm. mais mais mais c'est très positif in parce que résultat bi ñu ciy soxla. mooy fexe ba boo jàkkaarloog euh, euh, chef d'unité wala commandant d'unité telle force. nga xam ne diw la tudd. ba pare nag relation yi day gën a huilé parce que mm-hmm. sport moo moo moo mooy mel noonu dafay mm-hmm. dafay fédéré. Mm-hmm. Euh, du du jeex du xaaj initiative yi ñuy jël pour fexe ba dafa am nag loo xam ne dafa naqari gérer. fi may waxee am na ku ma téye commissariat Mbour dafa rey nit et puis cousin seen ñaari papa ñu bokk ndey ak baay ay jaaykatu légumes marché central xam nga yooyu police mënu ko gérer. ñaari nit ñuy jaay chou chou pommé la jote jox na ko ay chou pommé mu waroon jaay chou yi delloo ko son capital jël bénéfice jaay na jeexal joxu ko mu ne ko na sama xaalis muy muy làkk daadaa ñu xeex mu dóor ko ci tuñ ñaari lèvres yëpp d'ailleurs neew yi mu gis ne il est en minorité mu mu jël paaka jam ko ko ci cuisse ko xam nga il n'avait pas l'intention de tuer ah, jam ko ko ci cuisse certainement ñu ñu ngi xaar euh, résultat autopsie bi mais certainement loolu lay loolu lay war la mm-hmm. son sang a beaucoup coulé biñ ko biñ ko yóbboo évacué ko aux urgences tuuti mu gaañu mm-hmm. biig ci guddi vers 22 heures la ma ko docteur bi notifié donc c'est c'est des yoo xam ne mm-hmm. bëri na cas yu mel noonu li ci am solo rek te neexuñu sax parce que bu ñu sañoon kenn du rey kenn. Mhm. mais eh, cas yi ñu ci élucidé yi. cas yi ci yi fi am zone compétence police yëpp statistique yaa ngi nii indaale naa ko. élucidé mhm. nañu yëpp. Mhm. bi ci mujjee am mooy bu ginnaaw raay bi dégg nga jàpp nañ ci quatre suspects. enquête baa ngi déroulé. boobu sax la ñu a wax de sus situation la ñu war a wax euh, euh, euh, mën a tuddee wax suspect parce que. enquête bi mi ngi mi ngi continuer mais yi ci des dafa leer nañ. Mbuur ak euh, Touba ak euh, Mbacké ak euh, Dakar yëpp dañu dañu jàpp ñëpp. Mm-hmm. à cent pour cent. Mm-hmm. mais mais nag boo gisee ni muy demee parfois. c'est des situations extrêmement difficiles pour nga pour nga mën ko gérer et damay dir ci rebondir ci effort de sécurité bi nit ñi war a mm-hmm. ay temps dañu dañu dañu Malicounda c'est un la commune de Malicounda dafa dafa am peur de la Doum kenn ñu ci jël 63 xaram 63 xar ay di moutons de race yoo xam ne ay 3 millions la ko gars yi jaay ak yu kenn xamul coow li bëri parce que effectivement boobu vol de bétail bi ci àll bi du jeex man du du woon sax sama secteur de compétence mais dans cette démarche anticipative man duma xaar mu ñëw dama koy fekki bii bi affaire bi amee ma woo le président des éleveurs de local ma ne ko mais euh, ñaata xar moo ne ci ci enclos bi. mu wax ma nombre xar yam fa yor minimum xar bi ñaata lay jar mu wax ma ko ay millions ma ne ko est-ce que am nga benn gardien booy fay soixante mille wala soixante quinze mille wala cent mille boo xam ne dina ci dàq wërsëgam nga nga nga nga résoudre le taux de chômage au Sénégal mais nga permettre au moins mu am mm. muy veye mm. ci sa alal mu ne mu amul gardien fan la nekk mu ne mu ci biir kër gi kooku déjà il met sa famille en insécurité permanente mm. parce que xar moom foo ko denc bul sax son foog gaa yi ñëw ba pare ma ne ko ndax am nga caméra parce que caméra quand même ça devait dafa war a nekk réflexe pour ñi ko yor ñu yor xaalis laa wax réflexe la war a doon amul camera amul amul amul gardien les les stations d'essence dañu song station Saly c'est pas mon secteur de compétence douze personnes ñoo fi ñëw si si des oto bi si si song station bi ils ont tout vidé ils sont partis dem seen yoon euh, avant ñuy intervenir brigade gendarmerie bi di intervenir ni ñi dem nañu j'ai réuni les douze chef de station d'essence que compte la commune de Mbour sama bureau ma leen du gis ngeen li xew sali ma ne leen bu ma xoolee ci fii la jëm si ma ne leen waaw ma ne leen man laajuma leen essence laajuma leen oto yor naa essence yor naa oto yor naa nit ñu liggéey liggéey bi mais yéen dama bëgg ngeen defal ma état li lieux lan moo am ci seen station yi amul gardien pour le peu de station defe naa cinq moo ci amoon gardien mais gardien ay yet lañ yor mais yet jàmbaar lan la ci ku wàcc ci pick ak ay armes à donc ñoom ñoo war a garder seen bopp. ah non xam nga euh, au moins le premier rideau sécuritaire. ñoo ko war a assurer nag. Hmm. parce que ñoom c'est da nga yor sa station d'essence aussi est-ce que du gën a dëggal le sentiment hmm. d'insécurité. non non non non da nga yor sa station d'essence valeur bi rek mat na 500 millions te tu doo jël le minimum. mais ñoo ngi fay impôt. non waxuma impôt sa à dire euh, ñu ngi fay impôt mais police du dem gardel kenn station. loolu du am. TFM police gardé wu ko bi may ñëw fii ñaari rideau sécuritaire la romb. te sécu man sécurité ma ñor bi ma ñëwee gis naa comment la TFM est tenue et c'est important et c'est rassurant compte nos tenues du du du du poste d'inspection filtrage. mais noonu la war a demee. ñi am moyen laa wax. parce que police ñi amul moyen la gën a mën a taxaw book sax. mais ñi nga xam ne am nañ moyen lan la ñu pare pare pour def ñoom. pour que police ñëw en appui. Euh, le premier rideau sécuritaire ñoom ñoo ko war station bi valeur bi 300 millions à 500 millions gardien bi nga jël parfois sax du am gardien mais gardien bi nga jël pour le peu station yi ko am. ay yet lañ yor. alors que y a des sociétés de gardiennage qui ont une autorisation de port d'arme doo jël ci ñooñ mais da ngay fay plus. boo jëlee sagam jël ku yor aw yet di ko fay cinquante mille léeg-léeg sax nga ngay doo dàq ak moom moo leen gënal. Hmm. beneen bi mooy amul caméra. parce que caméra bi dafay dimbali police ci enquête bi. Hmm. ñi def ñi tojoon station Shell bi nekk euh, quartier bi nekk Sidima. Sidima fële Kër Massar. am Almadies de. waaw xam nga station bi dend ak